salaamaaleykum mbokk yi jamono ji metti na lool am na tiis am na naqar fépp ba ñuy wax ci coronavirus waaye nag li ko nar mooy lëndëm gi am ci àddina te doomu aadama moo ko teg boppam ndax bàkkaar waaye nag ma leen di xamal ni bàkkaar googu moo indi coono yeeg naqar yi ba nit ñi sonn ku ne su ñun réer jaxasoo te kenn xamul ëllëg lan moo koy dal loolu waral euh, way wi ma tuddee sama leer ndax ni àddina nekkee ci lëndam noonu la buur yàlla amee yërmande si ñun daldi ñu yónnee leer def ko ci ki ñu naan Yeesu Christ Yeesu Christ moomu mooy leeru àddina leeru jamono te wéy wi ma wéy di ko digmal di leen ko digmal mooy ngir won leen yoon bi nga xam ne moom lañu Yeesu Christ euh, tëral mooy yoonu jàmm ak yoonu mbégte mbokk yi maa ngi leen di ñaax ngeen ñaan ci Yeesu Christ fépp fu ngeen nekk ci àddina seen kër yi wala seen néeg ñaan Yeesu Christ mi di leeru jamono leeri àddina bi ñu buur bi yàlla jagleel ngir mu mën leen gi ngi won leen yoon wi womat ñu ñun yépp won ñu leer ak jàmm ju sax waaye nag ku ne ci yéen na am jàmm ci këram ak ci dundam jërëjëf